su ma sante yàlla ju julli ci Seydina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam di sant sama ñaari waajur di sant sama sëriñ sëriñ Babacar Si radiyallahu taala maa ngi leen di sant leen gërëm ci seen micro yi ngeen ma dékk ngir ma wax maay kan maay Makhtar Fall doon artiste nekk jamonoy tey après daaray coach waa di artiste daal Sénégal yëpp daal ah, gis nañ gis ci écran yi loo euh, sax du ñàkk sax i génn ci peut-être euh, xëy na comme léegi télé yi daanaka ni ñu daan def defatuñ ko bon ñu ngi ci cassette yi nag quand même ñu invité ñu ci nangam nangam ñu ngi génn nag gars yi ñu gis nag mais télé yi daal moom la ñu xaw a raar waaw loolu la quoi mais actuellement sax nii maa ngi ci am na ki bi mu ma compté nii moom birima bi birima bi maa ma maa ngi ci sax quand même waaw euh, nga ñëwee ci théâtre oh apprentissage xanaa rek apprentissage parce que boo xoolee daal mën ay années soixante-huit boobu maa ngi def menuiserie alors bu may def menuiserie bi soo ma wàccee rek damay dem comme si ma nekkoon ak cercle salle de fête bu Louga sorewul wala daan dem di ranger sabar yeeg yooyu wala jàngi tëgg noonu laa mën a mbalax nag yooyu yëpp dama ko mën mais kër gee ma tënk rek wala def noonu ba daal affaire bi même bi cercle de la jeunesse di di di di jóge Helsinki di indi coupe bi c'était en 68 ans boobu la jamono ju la maam Fallou génn laaxu ma je me rappelle eh, boobu car RTS moo am tu vois gars yi ñëw nag moo ma gën a yokk nag moo ma gën a yokk Pastef nag ci aar bi ma jógee foofu ñëw euh, Sébikotane booy liggéey boobu maa ngi liggéey bët fa laa xamante baay Eli il faut la ñu nekk nekk nekk nekk ba mu jóg après ñëw Tivaouane bokk ci troupe sëñ Moustapha si bu mu sas di alors fa laa xamante démb bi ñu ànd ànd ànd ba ni ñu demee jamonoy tey bon yàlla def pas Abou Camara bi mu génn àdduna alors ci laa dem jaaree ko ci vraiment euh, fa laa nekk ba grand cheikh Ousseynou yàlla def na ko macha allah daal waaw. say début ci daaree Kocc say commencement ci daaree Kocc mas nga nag waaw waaw parce que bi jamono yi tasee rek bi jamono yi tasee rek laa ko laa la la la maanaam dama dëkkoon ak ñoom bien que maa jamono tey mais bi grand bi génnee àdduna alors laa ñu lañ lañu la lañ ma woo ma dem nekk grand chef mu naan ma ah, dama lay yéex a jot mais ma la jotoon kon dépassé nga fi man ko sant yàlla alors nekk fa ak ñoom nag bon xam nga nit bu xamee sa valeur rek doo sonn dafa casting lay def rek casting gis nga gis nga gis nga gis nga dafa gàllankoor dafa amoon benn benn vision ci moom yàlla xam na ko damay nekk taawam rek mun ma jëlal taxi léegi nga ñëw. ci besoin de toi damay ñëw rek dóor dóor li muy rek daal di naan taawam daal di ñibbi si allah. football kan nga woon aussi. waaw waaw mënoon naa football de mais moom ma yàqal théâtre théâtre bi ma ko yàqal man année bi ma amee licence Taïba ak Jules Mbengue ci lañ ma convoqué jamono tey ma premier coupe maire Tivaouane maa ko gagné. keroog ci marqué la woon. wallahi wallahi wallahi wallahi mais théâtre moo pon doole ci man. théâtre bi ban ban rôle moo la ci gën a marqué ci sa carrière. Hmm, su bu la neex ak bi ma suy jeew kooku li ma marqué mooy benn dañ ma def casting casting bu ñu ma def peut-être amoon na sax xëy ñu doon lam-laamee parce que maa ngi tubaab ñoom ñu ngi Dakar pourquoi ñu jël ma pam dem ba leen non c'est parce que moom laa gis mais bi ma ñëwee j'ai joué alors tout le monde am na xool bi nga xam ni bi ma koy fase bi ñu divorcé alors bi ma ko taggee ñu ko nag ku baax nga ci man jéem nga lu nekk sama feebar yàlla dogal lu ma wér te nag euh, ku mënul ba baaxoo lu yàqu yow la alors bis ni bokk si ku la may ku la nga yeey alors elle m'a regardé ah, fekk rango ñu ne bàcc nga rango ñu yooyu ma gis nag alors dafa ma waaye yow ma génn daal di jóg rek. mu nekk ay rangoñ dëggantaan dëggantaan jéew rek man ci laa jóg rek daal di ñëw rek claqué bunt bi bu ma claqué bu ma frappé bunt bi rek tëdd ci laal bi alors j'ai pleuré ba Pape Demba fekk ma ne gannaaw mais qu'est-ce que yaa man ko non je sais pas affaire bi moom ma ñëw ba muy ay sentiments yoo xam ne parce que quand je joue man lu naturel rek laa joué je peux pas mën ma def comique ni dara ma drame laa man loo ma yooyu rek laa man macha allah parce que dama koy dund. dama koy dund macha allah. mais pièce boobu ñëpp dund ko lan la la indil yow. Hmm. xam nga xam nga bu ñu naan artiste amuñu dara c'est que am nañ dara parce que xam nga nit soo defee mbir ba am ci nit ñi rek am nga dara tey ji problème boo mën a am comme même boo yorul lu ni gaañ tamit mën nga ni allo sa nit ma j'ai un problème de tel am na ñoo xam sax duñ ko xaar waaw mais ndegam dafa waroon fekk nag ñu jox ñu cër bi ñu war a jox ba ñu am lu ñu war a am mais amuñu ko mais yàlla ngi fi man sama lépp ci yàlla ko wér rek. may wax léegi ni dem nga ba am ci fans club sax. à ah, ah, la Mecque ma ma mec ma góorgóorlu ñëw toog ni waa ji dafa ñëw rek toog ak otom nii ñu ngi suñu buntu hôtel il ma il ma regarde li mu yàgg ma xam naa ne waa ji ma la ma jàng ma reetaan ma maa yor sama course mu daal di wàcc oto bi ne mais man dama am ku ma lay xalaat est-ce que du yow paa bi ma jaawali théâtre man ko si moom la waaye dafa sukk il a mis à jour jox ma ñaar loxo ni ma fan nga nekk man ko maa ngi huitième étage chambre vingt cinq man waa naa fi jongoon mais ngoon jot mu ànd ak ay oto mais c'est du jamais vu. foofu ci màkk màkk indaale ay xéwal keroog ñu bëri maa leen may xéwal mais bëri maa ngi may xewal ci la daje xarisoo xarisoo benn bis yooyu ku ma am ndey ku ma am ndey mu teral ma ba may ba ma parce que fa lay sëy tu vois donc le théâtre am na solo boo ko defee ni nga ko war a defee yàlla fekk la si. mais théâtre ni mu amee solo euh, magi théâtre yi di di di dund ay situation yu doy waar di feebar dans l' anonymat yow naka la nga gisee loolu. Hmm. waaw foofu dina métti dina métti di di tontu parce que tey jii yàlla moo doon ma doon bu ma yàlla defoon ma jot sama loxo jot sama gannaaw benn magu at si du am problème. léegi sax ci magu artiste laa bokk mais assistance amuñu assistance nit ñi dañu doon jël rek ñuy for li ñuy def rek ay affaire kuréel nañ ko jàpp rek mais un artiste est un miroir dans un pays dañ ko war a jox cër dem Sénégal adduna bi Sénégal li ñu ci gënoon ndóol artiste ñu ndóol ci Sénégal ci artiste ñoom rek ni yéen boo demee Burkina Faso bii gën a dee rek boo demee seen artiste ñu ngi dawal seen i xaama ñu ngi dugg seen kër yu lépp mais ñun ah non on n'arrive pas pourquoi xëy na ñun ñoo ñàkk fayda wala ñun xamul mën leen nag léegi da ngeen di jël jóg ñu dem ci kii de décision yi instance de décision yi mais na leen politique dañu am naat il est à dugg nga xam ne bu ñuy wax ñu fekkee nga mën a wax mais boo ko amul boo amul ku la waxal ko loo am dara da ngay toog boo boo dee nag ñu ñëw ak yi millions la ñuy taxawal boo dee barke yonent bi sol seen ma mos a ñëw million ba mooy xurajë bi mu nekk xam ni dafa du jëf dañuy max mu pa bël ni ko bu ma dee ku fi indi million bi ñu ko jël yàlla mu leen raw waaw xanaa di leen sant di leen gërëm eh, di di di di di remercier daal Thiès 24. 24 25 26 27 ba 100 yàlla ngeen am ba Thiès 100 ci barke Seydina Mouhamed et je suis très content ci li ngeen ma dégg seen micro ak sama cameraman bi ak sama éclairage nu mu ko waxee borom lamp yi yàlla na yàlla doolu jàmm ci barke Seydina Mouhamed merci beaucoup.